bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman rabbi bima yasrahul ashana xad faja bi jaay afdani man lillahi xaad la jaa عمدي لرب كريم من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتيا ملا محمد صلوات الله في أباد عليه في اسمي كل بي شريك له أدعو إليه الذي عمد مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برا ناديت جل ومن وكرمني تكريم عاد وكل ممن لقن بريا rahman wa lil jami li xalqi ramataman yuxni ani sariman qur'anu qara ummatal mustafa an kulli mafsadatin wa tarhamil xalqa man jaddahum bara ya malikal mulk ya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 ci xaside gu am solo googu mën a ubbele jataay bi muy rahmaanu yaa rahim di xaside goo xam ne bi mu ko jàngee yaakaar naa ne xol yëpp feex na nga xam ne ca mujj rek sëriñ baa ngi ci ñaan njéggaluk suñu borom ci mboolem bindeef yi yàlla ñu ko ci yàlla defal mel ni bokk yi noo ngi ci bis bu màgg bés bu tedd bésub lislaam bés bu ñu fàttali ko jàmbaari lislaam muy sëriñ Massamba Kanni Bousso di kenn ci njabootuk lislaam waaye taxaw taxawaay bu am solo bu ràññeeku lool tegoon tànkam ci siraatul mustaqim liggéey lislaam ba yàlla may ko cër kii nu jàkkaarloo nag dootul ku ñu leen di présenté muy Serigne Cheikhouna Bousso Cumbuleen kàddu yi ñu koy bëgg a laajit du sët bi wax ci maamam rek mu yam ci waaye nit la kook saa àddoo wala saa bu ngeen déggee kàddoom lislaam di ci békk ñun lislaam di ci gis seen seen njëriñ loolu moo tax tey ji bi ko fekkee ci bis bi itam nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñi ngi taxawee bis bi ñu fas yéene taataan ci moom ay kàddu yoo xam ne daañ ko mën a barkeeloo ndax albarakatu lil mutabarakin kon nu maa si teewlu kàddu yi nga xam ne mooy tukkee Serigne Cheikhouna li tax nag xëy na ci njëlbeen gi ab Abdoulaye Diouf mooy borom tool des ko ñi mut a wax wet gi muy féete danga koy bàyyi mbayef gi rek waaye bu commencé bayit daañu xam nag wet gi mbayef gi gën a jëm waaye daal sëriñ bi euh, dëgg la bëggoon nañoo fàttali ko wàlle nag ci jàmbaar ji ñuy fàttali ko tey muy sëriñ Massamba Kanni Bousso asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi nuyu adduna bépp suñ mbokki jullit yépp nag ci nuyoob lislaam boobu ñu suñu boroom tànnal di wax ci njëlbeen gi di ñaanal ki nga xam ne moom la sunu borom teg ci boppu njabootu cheikhul xadim di cheikh mahamadul muntaqa sunu boroom gën koo dolli ak wér te gën ko fee yàggal ba mu mottali ay naalam ak ay yéeneem ci lislaam di ndokkeel nag njabootu lislaam gépp waaye di massawu umma islaamiya bépp ci xew-xew yu màgg yi nga xam ne mu ngi xew ci alam islaami bi ci suñ mbokk jullit yooyu nga xam ne ñu ngi leen di néewal doole te ci fan yi ñu gis ne boom nañ ci koo xam ne ku ràññeeku woon ci lislaam di ko amoon taxawaay di asayid xasan nasrullah di ñaan suñu borom yàlla na woyofal suuf ci kawam yàlla na ko yàlla dolli yërmande yàlla na ko yàlla dolli leer yàlla na yàlla baril ay kemam yu ko wutu ginnaawam di ñaana leen mbooleem ña nga xam ne ñoom lañ boole jëf jooju kon di ko naqarlu ni ko ni ko ni ko ab jullit war a naqarloo waaye di leen ñaanal tey ñaan sunu boroom mu mu kàttanal islaam te néewal doole kéefër di ndokkeel suñ bokki jullit yi nga xam ne ci fan yii ku ne xam na ni sunu borom dikk naat ak coobareem ci taw boo xam ne euh, bu fekkee mas na fi amit gëj naa am <laughs> ñu baree bari loru ci ñu baree bari yàqu la ci bay bakkan des ci <laughs> ñi ci seen bakkan des ñu ngi leen di jaale seeni bokk tey ñaan sunu borom mu yeesal yërmandeem ci seen taw <laughs> ñi ci seen alal yàqu yi ñu ngi ñaan sunu borom wutala leen ko lu gën ci ñoom yéene yi nga xam ne moom la sëriñ Muntaxa am te jullit ñëpp ànd koog moom kenn ku nekk di ca barkeelu yàlla na ko yàlla mottali ba ñu génn ci jafe-jafe yooyu ci barkeb Cheikhul Khadim ni nga ko waxee nag euh, sëriñ kan xam naa euh, jataay bii moom jataay la boo xam ne seq nañ ko ay yooni yoon ndax euh, tey day bis boo xam ne bisu fàttaliku la ak ñaan ci sunu maam di sëriñ Masamba Kanni Bousso di kenn ci njabootu sëriñ Touba. bu ñu nee kenn ci njabootu Serigne Touba nag mooy di mbokkam waaye di ab taalibeem doon it koo xam ne na mag ñi àndee woon sëriñ bi noonu la àndee woon moom. te kuréel bu ñu jël ci kuréel yi mag ñi àndoon sëriñ bi rek moom mën naa bokk ci kuréel boobee. bu fekkee am na lu ñuy fàttaliku ci moom mën nañoo wax ne moom jëmm la woon joo xam ne nekkutoon ci genn wet. ci wet yi nga xam ne moom la nit di ràññikoo dafa boole woon yëpp ndax bu dee doon mbokk ci sëriñ bi mooy taxa nga jariñu ci sëriñ bi moom mbokkam la mu ko jege bu dee nag doon borom pas di murit boo xam ne da ngay futteeku laxasaayu di liggéeyal sëriñ bi mooy tax a jariñu ci moom defoon na ko ba mag ña nga xam ne ñoo fekke woon ay jamonoom daan wax ne ndokk ba muy ndaw ndax bu doonoon mag kenn du jariñu ci sëriñ bi ngir pas ba bu dee it ci xam-xam la ñuy liggéey la ndax moom lim tabax lépp ci xam-xam la ko tabax moom Cheikhul Khadim <laughs> euh, yàlla dogal na mu doonoon borom xam-xam ndax jaaroon na fa mu war a jaar jàng ba xam li waroon a xam di ci liggéeyal Serigne Touba kon moom mboolem kuréel yi nga xam ne mën nañ koo catégoriser mag ñi àndoon ak bi suñ ko séddalee kuréel bu ci nekk mën na caa bokk kon moom daa nekkaloon Serigne bi ci wet yëpp doon mbokkam di ab taalibeem doon borom xam-xam di di di borom pas-pas bañ tuddee ko ab daanukat loolu yëpp daa daje woon ci moom. fàttaliku gi ngi ñu koy fàttaliku it li xibaar yi nett yi indi ñu ko mooy guddi gàmmu la Cheikhul Xadim radiallahu anhu euh, taala euh, toog ak moom wan ko jëmmi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom nettali indi nañ ko ba ci ñun mu doon nettali yoo xam ne it yuñ gëm la waaw ni mu doon nekk yoo xam ne ñu gëm la moo tax ñu di ko fàttaliku di ko ci ñaanal loolu it ab cër la boo xam ne yombut ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam moom eh, ci ay nelaw rek nee na boo ma ci géntee gis na xam ne sama jëmmu nga gis ndax seytaane du ma misaalu kon nag bu fekkee da nga ko gis jeexren maanaam yàqasatan la manaama loolu cër la boo xam ne eh, du ñëpp la borom defal kon moom moom mi ñuy fàttaliku eh, jaamu bi yàlla la woon boo xam ne li taxoon yàlla indi ko fi xam na ko te ca la nekkoon ku nangu woon nguurug sunu boroom gi la te nangoo jaamu boromam am tawxiid muy pas-pas boo xam ne du jaawale lenn yàlla ak dara waaye jaamu yàlla googu it mu tënkoon ko ci sunna su yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax képp kuy jaamu yàlla te jaarewu ko ci buntu bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam jaamu googee moom sunu borom da ko nangu keroog ba sunu borom yónnee yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci iqra bismi rabbika alladi xalaq ba ba muy lalli dëndam bi képp ku jaamu yàlla te jaarewu ko ci wasalaam moom sunu borom da nangu sa jaamu googu boo demee ci al majmuatu suxra bu cheikhul xadim bi na nga fekk ca mujj ga mu ci leeral loolu di wax ne képp ku jaamu ku dul yàlla bis dana dinañu nga xam ne yàlla rek a matoon a jaamu waaye képp ku jaamu yàlla it jaaroo ko ci sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam bis dana ne yonente bi la yàlla yónni woon ci ñun man abada gayra allahi fa sa yaalamu annahu la ilaha illa allah wa man abada allaha bi gayri sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa fa sa yaalamu anna muhammadan rasulullah sëñ Masamba nag yooyu daaw ko jaawale li pas-pasam daan dëgër dëgër ci sëriñ bi ba ñuy wax ne ab daanukat la taxutoon mu teg yàlla fu dul place ba ko war a teg maanaam place yàlla mosu faa teg ku dul yàlla place yonente bi alayhi wa salaam mosu faa teg ku dul suñ Tuubaa nag meloon na ci noo xam ne mag ñiñ gënoon a naw ci ak taalibe bi mag ñi nga xam ne ñoom nañ gënoon na naw ci ak mhm. wax nañ ne daa nañ wax ne ndokk ba muy ndaw ndax bu doonoon ma kenn du jëriñu sëñ mi ngir pas-pasam bokk na ci seere yooyu sax wax nañ ne bi mu fi jógee sëñ Mourtala ci boppam mhm. eh, sëñ Mourtala moom Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wax nañ ne seere woon na ci moom ne ah fii mu ne nii de Cheikh Rafal ku ko fekk fa mu nekk dana xam ne am na gantay bi bi sëñ Massamba jógee loolu na ci wàllu pas-pas taxoon mu seere ko mhm. kon moom eh, yàlla dimbale woon na ko ba bi mu doonee jaamu yàlla bu nangoo jaamu yàlla it ci sunna la ko doon jaare waaye bi mu jaayanteeg Sëriñ Tuubaa it xam na lii tax ñu mën a jëriñu ci sëriñ bi te mooy al iradatu loolee mu nekk ca waaw xam nga moom dafay yeesal ak jaayanteem ndax Sëriñ Bousso bi moom njëkk a jébbal Sëriñ Tuubaa njabootam am gépp loolu Sëriñ Tuubaa wax na ko ne moom mboolem ñu ko jébbal moom Sëriñ Bousso bi fekk ne mu ñu doon ay ndab yoo xam ne dañ leen dañ leen raxas bañ set nga xam ne du rek a ci des loolu Sëriñ Tuubaa seere woon na ko ci Sëriñ Bousso bi ko jébbal njabootam gépp fekk ñu doon ay ndab yoo xam ne dañ leen duy ba ñu dañ leen raxas ba ñu set nga xam ne duy rek moo ci des moom nag fekkoon na suñ tubaa gànnaar waaw fekkoon na gànnaar fekk na ko ci yeneen i barab it nag euh, waaye jaayante gi daal li am li ci am solo moom mooy am na risaala boo xam ne euh, lettre boo xam ne walla wala xasida goo xam ne sëriñ bi suñ Masamba moo ko taalif xasida googe nag moom day fedd feddali ak jaayanteem te xasida gi mm-hmm. euh, bayit wu njëkk bi rek mën nañu wax ne ñett yëpp da cee daje aqida muy pas-pas da cee daje mm-hmm. tawxiid ju dëgër mm-hmm. ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. ak euh, doon taalibe Sëñ Tuubaa te mooy mantiqati kal jismi lil baaxil xadim fi sunnati l muxtaari li abdil xadim nga xam ne da cee boole ñett yëpp muy tawxiid ak sunna ak iraada nga xam ne koo boole ci njëlbeenu bayit nga xam day wane ne moom kon euh, bayitu ñaareel wi li nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa woote te am ci ndigalul yàlla muy rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars nga xam ne ca Mbàkke Kajoor eh, suñ suñ borom da koo joxoon digal ci mu woote ci himma boo demee ci almajmuatul kubra bi na ko fa ci beneen barab boo xam ne suñ borom dana ko rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars wa rabbi kulla waahidin bi bi kenn ku nekk na ko yar ca la yàlla ca moom himma la suñ tubaa doon yare nit ñi mm-hmm. tey wax ne saarifan himmati li rabbi taala rajan saqiyahu bi ma in maini mm-hmm. bayitu ñaareelu moom la suñ masamba wax ne kon maa ngi soppi sama yitte ji sama lépp nag jëme ko ci yitte jooju te mooy topp suñ tubaa ci himma mm-hmm. eh, saraftu himmati li himmati rijal wa himmatu rijali wajhu sil jalal ginnaaw suñ tubaa ci yitte la woote te moom wane na pas-pasam digganteem ak jaayante naag suñ Tuubaa nag léegi li mu fas yéene mooy topp ko ci himma jooju mu woote mu yitte jooju mm-hmm. daa ne yitte jooju nag moo yitte góor yàlla yi ci bay ci xasida googu nag la leerale ne lii sama yitte tey nag mooy jaayanteeg sama jaayanteeg maanaam jébbal sama bopp sama borom mm-hmm. euh, ci sunna si yonente bi alayhi salaatu salaam waaye topp ci Sayxul Xadim nag nga xam ne moom mooy wom ma ci yoon woowu te noonu la suñ Tuubaa daan jaayante moom mm-hmm. aslamtu nafsi li rabbin jalla an waladin jébbal naa sama bopp yàlla mi nga xam ne jomb nag muy am doom waaye Mm-hmm. asnat nafsi goo gis rek li rabbin la cay teg mm-hmm. ak lu mu ci mën a tegat waaye li rabbin moom yàlla lay jébal boppam waaye nag ànd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam sëñ ma sàmba nag wane ne moom it jébal na boppam yàlla ci jaare ko sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ànd ak cheikhul ko ngir teg ko ci yoon moom li may dénk sama bopp te di ko dénk képp ku nongu ku ko dénk mm-hmm. mooy ñu fexee xamaat bu baax euh, liggéeyub suñ tubaab bi ak li nga xam ne moom la suñ tubaab bëgg ci ñun dafa mel ne nag euh, daa tàmbulee daa tàmbule raaf ci wet yu baree bari ndax daal dafa mel ne dañoo tàmbulee néewal doole da Sëñ Tuubaa gënoon a fonk euh, tàmbule it di toroxal ak a xas ak a ŋàññi ak wax lu ñaaw ña nga xam ne ñoo ko nekkal ca loola maanaam Sëñ Tuubaa bu ñu jàppee ne da doon ne da doon jihaat nga xam ne lim am lépp ci jihaat la ko am mm-hmm. moom lam doon jihaate mooy xam-xam benn murit bu werante ci ne suñ Tuubaa bind yaa jumlatan moom amul ñëpp d'accord nañ ci ci biir yaa jumlatan nag indi ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa la ca wax man ci xam-xam ak ragal yàlla lay jihaad xam-xam boobu mu doon jihaate ak ragal yàlla nag lim na sax fànni xam-xam yi mu doon jihaate alxuraan ca la bokk hadis ca la bokk tasawuful islaami ca la bokk lim na ko zikrun dafa wax ne amar rimaax yi daa njëkk wax ne sax in kaana lil aadaai aslihatun tihi xiifu in kaana lil aadaai aslihatun euh, biha xiifoo fa aslihatu fa aslihatu tihi wa ujaahidu daal di wax ne nag zikrun wa ma daafici laati biha an fil ida sama kënu yi nga xam ne ci laay dàqe samay noonu wa ma daafici laati biha an fil ida wa biha yufaariquni anidun qaasidu zikrun xakimun uxkimat ayatuhu mimman yuzahzihu ma yuridu lmaridu mooy alquran mooy kënu gi mm-hmm. bu dee banqaas yi amal furuu fa ashumun qad xuddidat nee na bu dee bu dee fett yi mooy fiq mooy mooy banqaas yi bu dee tasawuf mooy espion bi nga xam ne moo koy gëstu jël ay xibaar ndax lool da daan am ci xare ci lislaam bu ñu daan xare ji dañuy yebal ay ndaw yoo xam dañuy gëstu ji ba xam lu xew ama alladi yatajassasu l asraara li fa tasawufun saafin jalahu amajidu amma rimaaxi fal ahadisu allati bu dee xeej yi mooy hadis yonente bi sallallahu alayhi wa moom jumtukaay yooyu la yoroon di ci xeex ci la amee lim am lépp nag te wax na ko ci yeneen barab yu wuute léegi nag bu ñu demee ba jamono toll foo xam ne nag maanaa ku bëgg a tënku ci xam-xam te liggéeyal ci sëriñ bi maanaam ñu ñu ñu ñu luñ xam ci lu ñaaw wax la ñu xam ci fu ñaaw dëkkale la loolu day mel ne kon am na leneen lu judd ci biir yoon wi loo xam ne folklore la te loolu xeex Sëriñ Tuubaa la gën a nuru jumtukaay bi mu doon xeexe moom ku koy xeex day ku koy xeex jumtukaay boobu day mel ne yaa gën a jege xeex Sëñ Tuubaa li tax ma ma ma ma wax lii nag mooy boo xoolee at mii rek at mii mhm. dangay gis ay kàngam yoo xam ne seen dund gépp dañ koo jeexal ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ci xam-xam mhm. te dañuy indi benn fatwa ci xam-xam wax wane ci seen postion boo xam ne bu Sëñ Tuubaa teewoon tey ñoom ñu wax loola Sëñ Tuubaa gërëm leen ndax xam na ne ñii ci xam-xam la ñuy dox mhm. te loolu mooy doon dëgg nga gis koo xam ne ci dégginam ak bëggam day jàpp leneen lu wuuteeg loolu tax mu attaqué ko di ko saaga di ko xas di ko ŋàññ def nañ ko ñu baree bari waaye ñi ñu ko mujjee def rek la mën naa leen tudd suñ bàkk Abdourahmane ci la bokk def na fi benn fatwa boo xam ne lam wax ku xam dara loolay dëgg lu ñaaw lu nekk wax nañ ko ko ci suñ Seexuna Abdul Wadud barki démb def na benn fatwa boo xam ne ci xam-xam la wax lu ñaaw lu nekk wax nañ ko wax nañ ko ko ci ba accusé ko jàpp ne du murit te yàlla seere na ne ñi ma jot a dégg ñëpp ñu di ko accusé billaahi la si laa ilaha illa ku ko ci ëpp pas-pas sa diggante Sëñ Tuubaa amut te kenn ci ñoom koo xam ne li mu liggéeyal Sëñ Tuubaa ci ci kaw suuf maanaam ci ak dundam liggéeyal nga kenn ci ñoom koo xam ne li mu liggéeyal Sëñ Tuubaa liggéeyal nga ko amut ñi naan du murit ñii di ko saaga ñii di ko wax lu ñaaw te boo xoolee mbooleem ñi attaqué yoonu murit tey bind ci xam-xam di wax loo xam ne au niveau international lay dem ña koy radd di di dajji wax joojee am mbind ma ci ëpp ñi nga xam ne dañuy bind loo xam ne fépp ci àdduna bi lay dem di wax ci yoonu murit lu ñaaw ñi di ko gëm ñay wax lu dajji wax joojee bind ko ñoom it mbindum Seexna Abdou Dou moo ci ëpp fii nag bu yàlla doogalee ngay borom xam-xam boo xam ne dangay ngay jëf te doo wax ñu bari mën nañ laa bañ a xam bu yàlla dogalee bokkoo ci xëlëf-xëlëf ji di dox ci xam-xam ak nite hmm. ñu bari mën nañ laa yi di ko natt ci ñii fi nekk bu ma nee ñii fi nekk ci laa keneen ci la nañu fab nattuwaay nattukaay ko hmm. boo xoolee diggam ak Sëñ ak digganteem li Sëñ Tuubaa bi na nga xam ne am murit la waaye boo bëggee xool sa digganteeg moom yow mi fi nekk nag da ngay jàpp ne du murit fekk yaa considéré sa bopp Sëñ Tuubaa te doonoo ko loolu mooy problème bi ñu bare bari nag ñu koy attaqué hmm. te dañoo considéré seen bopp Sëñ Tuubaa te duñ Sëñ Tuubaa jegewuñ ko sax nag Cheikhouna nag yàlla yee nag moom mbokkum Sëñ Tuubaa jàng na te du gone te défendre na Sëñ Tuubaa fu ne ci àdduna bi te ba fii may wax ak yow attaques yi ñu koy attaqué yàqut ci pas-pasam digg mag Sëñ Tuubaa lu toll ne boo liggéey ko liggéey loo mu liggéey buñ ko def loo mu def waaye ci xam-xam rek la koy def ñooñu nag buñ demee ba di leen màbb di leen daj di favoriser ay gone yu ndaw yoo xam ne ciy caaxaan képp lañ nekk ñu di leen saaga lu ne ñu di leen ko wax lu ne ñu di leen ko def loolu te Sëñ Tuubaa moom ci xam-xam la ñu xeex yow nga ñëw di xeex kii kii jàppale Sëñ Tuubaa kon yow yaa gën a jege xeex Sëñ Tuubaa loolu moom bu ma amee message bu may lancé moom mooy maanaam njuddu mu yees mii daal nga xam ne xeex xam ak ñooñ xam mooy seen yitte loolu moom nañ xam ne ñoom si xeex Sëñ Tuubaa lañ gën a jege mbir yi moom du yég yëg boo xam ne noo ko yége rek noonu la déedéet diine diine du noonu liggéey Sëñ Tuubaa bi du noonu du ni ko yëgee rek ginnaaw lu suñ Tuubaa rëdd la uhuh. téere yaa ngi fi mag ñi yaroon a ngi fi uhuh. léegi mbir mi dañ koy atte ca nam doon jàngalee ak nam doon yare mag ñi yow nag sa yëg-yëgu bopp sa yëg-yëgu bopp la kenn contre ko waaye bul force nit ñi ci sa yëg bi sa yëg bi ci la dox loolu moom mënta nekk moom loolu daal mooy message bi nga xam ne maa ngi koy dénk sama bopp ak képp ku bëgg maa ngi la koy dénk wasiqtu bi rabbil harul sisil jodi wal afwi ma'al mustafa سيرت مع المختار ولدت خديما فيهم جداي وسيلتي ولدت خديما فيهم ابتدائي وسيلتي ذي الملهان وزايا الغربة mbokk yi ñu bàyyi xel kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu leen ziara di jiital sunu biir nuyu ak sunu siyaar saahibul fadila jàmbaari lislaam ji Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaane yàlla may ko fan gudd lool wànd ko wér te wérale ko ñu ko wër di santaat yàlla bu baax moom mi ñu defal tawféexe ñu teewaat ci bis bu màgg bisub lislaam bisub jàmbaari lislaam muy Serigne Massamba kaani Bousso di kenn koo xam ne kennul diine la liggéey lislaam ba làq ay ngërëmam sans borom dogal mu dëkkaale jëg borom bi subhanahu wa la waaye njaboot gi itam taxaw fi taxawaay bu am solo di ko fàttaliku ci di ko ñaanal di ko fàttaliku di fàttali nit ñi ay jikkoom ak i jaar-jaaram ngir ñuy mën a barkeelu ci moom ndax albarakatu lil mutabaarikin kenn ci njaboot gi di sëriñ Mokhtar Cheikh Mahamadou Mokhtar Bousso fas yéene ànd ak ñun fàttali ñu tuuti rek ci jëmm jooju nga xam ne mooy sëriñ Massamba Kanni Bousso gannaawam ak njaboot tamit naka lañ taxawoo gannaawam waaye bis bi nga xam ne ñu koy def ngir di ko fàttalikoo ci moom di ko barkeeloo ci moom it lan mooy yillay bis bi ak naka lañ koy dundalee nu ànd ci ak moom kon bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di leen ziyaare bu baax ak mbégte ci fekk ngeen ñu fekk ci bisub tey bi ñu jagleel ko kenn ci jàmbaari lislaam yi kenn ci ndefarul cheikhul xadim yi muy cheikh ma Massamba Kanni Bousso cheikh Massamba Kanni nag euh, xamle ko lu yomb lay doon ndax buñ ne kenn la ci njabootuk euh, sëñ bu soobe mu day waaye waaye juróom bu soxna Kanni Mbàkke itam euh, mu daal di doy moom Mor Dieng moom Ibrahima Awa Niang moom maam euh, Maaram kon ci askan buñ ko bëggoon a situer ci lu gàtt loolu la ñuy wax. li ci apart solo nag mooy euh, bërëb bii nga xam ne comme ni nga ko waxee fii la ñu fekk muy Daarul Xadim muy lenn ci bërëb yi nga xam ne ba tey ci fàgguteefuk sëñ bi la ndax gannaaw bi mu wutee ab bërëb te ko xam sëñ Tuubaa xam ne dafa bokk ci am njàngaleem day lënkale nit ak millier maanaam relation bi nga xam ne moo am côté relationnel bi am diggante nit ak ak ak milieu madial bi muy dund loolu dafa feeñ bu baax a baax ci njàngal mi Cheikhul Khadim ndax ñëpp xam nañ ne ba ci ñiy def euh, sociologie dañuy wax naan euh, c'est le milieu qui détermine l'individu donc loolu dafa feeñ lool ci njàngalem sëñ bi te day fexe nit ki jamono bu ne bërëb bi muy dëkk suuf si muy nekk ban relation la am te loolu it ko ko dem ci lislaam da nga xam ne cosaan lu yàgg la ndax ba nga xam ne suñu borom moo jël décision ci jël doomu aadama wuutal ko ci kaw suuf si ba pare digal ko ne ko na koy dundal inni jaahilun fil ardi xalifa kon ci mission principal bi nga xam ne ci la jaam ñëpp nekk te mooy wuutal suñ suñ borom ci suuf si ca euh, dundal ko ni mu waree loolu itam suñ sëñ Masamba Kanni ak ci njàngal sëñ Tuubaa daf ciy feeñ fii ci Daaru Xadim ndax ci ndigalu Cheikhul Xadim la sance dëkk bii euh, donc ba mu ko sance itam mu nekkoon bërëb bu yaatu centre la woon boo xam ne daf fi doon euh, yare lenn ci magi murit yi jamono lan jam jamlonteel ñu bari am na ci ñoo xam ne seenu njaboot fii sax lañ des indi jox indi woon nañ ko jox ko sëñ Massamba Ka ni mu leen doon defar ak ñenn ci murit yi nga xam ne euh, sëñ Tuubaa joxoon na ko mu leen doon taxaw kon ci mission boobu la def sëñ Massamba Ka ne ngeen ko xamee ba fi jóge dafa xaw a yàgg ndax depuis 1936 donc def na ay at waaye nag euh, moom sëñ Massamba Ka dafa am particularité mooy boo ko doon jàng danga nga naan moom exemple la ci ndaw ndaw ndax xëy na nit moom ku sa ku sa ku muy sa maam mag la ngay gis ci moom waaye fan wi taxu koo gudd wi taxu koo gudd te teel naa réaliser ay ay ay ay œuvre yu am solo yoo xam ne day wane na nit at yu tuuti teewut a am himma te a am yitte ju kawe day ma a daal li Sëñ doon wax ne bi ko euh, mission bi dikkalee mhm. rabbi bi bil himma loolu ma Masamba Kanni daf koo dund moom ndax himma mooy nit koo xam ne da ngay am di euh, da ngay am euh, euh, yitte ju kawe kawe kawe waaye nag yitte jooju ngay am tam danga koy mesure ci li mën a nekk maanaam di xam li mën a nekk nga nga nga nekk ca te bañ koo ëppal bañ koo yées loolu day feeñ ci mbindum sëñ Massamba Kanni doy na la ci rek lenn ci béyitam bi muy wax di munaajaat di ñaan boromam di ko wax ne ko wa faddalan ala siwa saatil qadim kulli bii min xalqi asri yaa yi xam nga béydoow boo ko décortiquer rek da ngay xam kan mooy ma sàmba Kanni mooy yitte ji kawe na ba moom xam na ne suñ borom dara taw ko mu ñaan ko yàlla suñ borom teg ko foo xam ne ci ñitti jamono mu féete ci kaw waaye sëñ Tuubaa mi nga xam na ne euh, dafa bokk ci teggi ni ñaan dangay ngay ñaan yàlla lu mën a ne sëñ loo kenn mënu koo féete kaw moo tax da koo da koo settee maanaam loolu dafa dafa am solo ci nit maanaam mébét kuy mébét da ngay mébét lu mën a nekk waaye bayit yi boo ko boo ko décortiquer tam da ngay gis ne lu ci ne da ko teg ku nit ku dëgg doomu la nit ku xelu la ndax li nga xam ne mooy sëñ Tuubaa daf ko jox wàllam ba mat sëkk ndax mooy nit yi jamonoom kenn du ko féete kaw loolu sëñ Tuubaa ko waxal bopp moom ci boppam mm-hmm. moo tax génnee na ko ci waaye def ko moom it mu li ko yàlla di jox lépp dafa bëgg mu jaare ko ci sëriñam bi di Cheikhul Khadim waaye euh, relation boo may am sëñ Tuubaa li muy kawe kawe téewut nag tawxiid ju rëgg bi mu demee ba bay ñaan nag ki ñi ñaan dëgg dëgg mooy suñu borom mooy yaakaar yi nga xam ne benn bayit woowu rek boo ko boo ko toppee da ngay gis dëgg-dëgg personnalité kan mooy sëñ Massamba Kanni ci ban dimension la amoon ci digganteem ak boromam ban dimension la am ci digganteem ak Cheikhul Khadim waaye yitte ju kawe ji nga xam ne xëy na moo indi dëkk bi ndax jamono bi muy euh, euh, euh, sos dëkk bi da ngay yëg ne at yi bëriwul boo ko xoolee fanweeri at yi la ci teg du bëri donc loolu day wane ne ndaw ni ko mu yàgg amee nekk ndaw téewut am yitte ju kawe téewut a mën a am ab cër ci suñu borom waaye téewut a réaliser ci àdduna loo xam ne nii luy jamono yàgg-yàgg rek ñu ñu ñu ñu mën koo ñu mën koo euh, continuer di ko di ko màggal comme ni ma amee ci bis bi ñu wax ne nag bis bi ñu ngi ci fàttaliku xew-xew bu bu bu yéemaane boo xam ne ci ci may seexul xadim yi la bokk mën nga ne wax ndax dañuy wax ne ci bis bi ñu ngi ciy fàttaliku bu baax Euh, gis goo xam ne Sëñ Tuubaa war na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jaaran ci lu muy gis loolu cam ci yi ju kawe rek la mm-hmm. yitte ju kawe la joo xam ne nit da ciy nekk ba mujj dara dootu jomb ndax daayiratul imkaan moom dafa yaatu mm-hmm. waaw ca may yàlla yi moom du jeex mm-hmm.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 gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi